عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق ويجعلنا بين مدار الناس والامراء والتوجه على ونحن من الله وسلم وإمام القواعد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا بني إن الله تعالى يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أنكم شهداء على ذات يا قوم إقرار بني ما قال من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وقالوا كونوا جبل من الإمام قولوا آمنا بالله وما أنزل الله

ñëw bu am solo la ñëw taalibe la ñëw dëkkandoo la ñëw mbokk la kon tànk yi ngeen jub set yëpp ñooy yiw la rek loolu ñu ngi sant yàlla bu baax di leen ci ndokkeel di wax ne def na li nga xam ne nii moom la war a def te defal na ko góor yàlla boo xam ne ñu suñu waajur Cheikh Mouhamadou Mourtada lépp lu waaye mos a def si moom rek gis nga njëriñ li ndax moom dafa di koo xam ne teraanga bi doo du ko fayee mukk fàtte loolu nag gëm naa ne ginnaawam la kanam wàllu yàlla bu wér la te kooku ay mbiram say mbaanam daf koy jiw ci jamono ju ne wax dëgg yàlla ñun jii ngeen jëf nii rafet na trop moom it wax dëgg yàlla comme dafay yëngatu ci yooyu jamono loolu lu war la parce que doomu aadama bu nekk yokkute ngay bëgg bu la ko yàlla bëgg bu la ko yàlla mayee ko bëgg say mbokk yëpp boo ne nag wax dëgg ci ci commune bi la nekk wala département bi. Euh, lépp lu mu def rek ci góorti caana bi daf ko fee war a def euh, comme mbiri jamono la nag wax dëgg yàlla Kossy moom am na lu bëri soxla yaakaar naa ñu waa Kossy ñu ñoo ma a xam ñu àggee luy yell la waaye yaakaar naa taalibe bàyyi moom bu dëggu ci xolam kooku xolam bi mbiri seen rek moo ci mm-hmm. moo tax na kooku jëfee joxanteeg loxo ñu koy xaar ci ci ngoon bi suñuy gën a xamante euh, bu fekkee li nga xamante ne nii moom la causes yi soxla ñu dégg ko incha allah rabbi parce que loolu boo xamante ne nii gëm naa ne incha allah rabbi dara ci jëlee yëpp ñu koy ñaanal yàlla lépp loo xam ne bëgg na ko. te di ko xëjee nëwër ko. te mu jëm ci jaamu yàlla yàlla ko ci yàlla jotal. yàlla musal ko ci ndam ndam. yàlla dimbale ko taxawu ko nekk wéttalam. ba mu xam ko moom. jërëjëf kontaan nañu trop. لا إله إلا الله لا إله إلا الله منتدى دوم بايل موي سفيان كي بو ماك بي تي بي بي تدهون حدنا مبلن بودي جي جبلو يالله moo tax tey force dund bi yëpp danañ jublu Cheikh Mouhamadul Mourtada Mouhamadul Mourtada doomi bàyyi la Barhama Ñas mooy xaduna soxla hut ko ak ngolam xëncu xut lu may yàllaa yonen beeg seexu tiijaani bu yooyoo jotee nga ko ko ca xabru barhama ba ma ngay ubbi téere ba di jàngati xetti li jaam yi xool te xet gaa bi kii doomu bàyyi la billaahi bàyyi leen ñaan ca asal ñoom ñu nekk di ay waliwu kon kay sëriñ bi ñun de ñoo ngi lay siyaara ñes ku ma abdallahi wallahi ñoo lay siyaara duñ dañ ñun di la siyaare say leer di baawaan ñas ñas gumba abdallahi wallahi ñun dañoo di siyaara faj na ay aajo aajo ci dun bi faj aajo moo ci man billaahi ci dun bi moom nga daan ñëw di mu far ko net lil ba pare na demal bàyyi faj ko te boo demee mbir mi noonu lay demee koo si jaameen doy na ci seede moo ñu ñoddil mu neex meen mu naqare mi hàcc na moo ñu doddil courant bi walaayatina taal yaa ngi jug jëm ca kaw daara wa seen Mouhamadul Mourtada yal na ñu la yàlla fayal ci baaxu barahama yal na yàlla fayal ñu la ci sa njaboot gi ci baaxu barahama dala salaatan wa tasliman may taxawlu di ñaan ci barke Baye Barhama ibnu Abdallah moo tax ma ne ko nuuru wujudan fa huwa adnul usuli wala anjaade sallallahu alayhi wa sallam أبكار الأمام باب اللباني فقر بنت من لصاب المالي فثيابي إليهم وقرب بين أرجفون بدمار صلى الله عليه وسلم ونسران لها سميئا برئاء من البقاء الأمان صلى الله عليه وسلم فدلني تلك البقاء وحاجة في رديق ذا بقام رسال إبر المد الأمير ولا تأخ سورا أنظر كذاك المجانين بين عليليني بمجه وانصره نصر المد الامين ناصر المقادير صلى الله عليه وسلم خليلنا بمني بعقولي تتدري في البهاء نسمدها لي كيف مني لمن قديم سراه جبرائيل الامين دون الليالي صلى الله عليه وسلم كيف مدي له البئر كذلك دار نصر من جوده المتهاد صلى الله عليه وسلم كيف مدي له القلوب اليمين خضرة من فتنه الله وسلم كيف بدا منصر فيه دون ما أجمعني كيف مدي محمد ووروه مدي أغام دعي في كلامي كيف إذا تأثر كل بان حامد الفكر أن تصو إلى صلى الله عليه وسلم كيف لكن هرويل تتفلد الخا في الجموع المضايقة قبل نوادي بين قوم هرويل وسجدا أو نراب مالك النيم الأون من ويس الجلال عين حبس السلك نسبة نسبته سنة المصطفى صدوق المقال قد بدا عبد الوجود كريم من من كرام الأباد الأبدال فإن نسب فدل كراما وكلا وسن الله مصطفى بتواله صلى الله عليه وسلم فقد اختار ربنا دما واختار سيسا وسع المال ثم إدريا ثم ناسا لأسا قد سمع من وين من بدالي ثم نوحا ثم القليل فقنا إلى وسئين سئين رجالي صلى الله عليه وسلم ثم دنا بن ثم مادا ونزار شاد بسلك اللهم صل على سيدنا محمد قاتل ما قاتل لما أبقنا تلاق بلاك ولا إلى صراطك المستقيم على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 te wax dëgg yàlla bi ñu demee owaat nañ foofu ci Dakar ne ma ñoom soxla yi ñu fi indi woon yëpp daanaka fa ñëw xam naa la bu baax sa taalibe bi man moom xam naa ci bëree bëree bëree bëri fekk nga ma kër mam naa yoon benn yoon ñaar yoon boo génnee ñu ne jëlee rek ko bëgg bàyyi foofu nga bëgg nag mënoon ngaa toog sa bopp waaw moo tax daal soxla boo fi indi moom incha allah rabbi dana fa moom sikkuma ci sax incha allah rabbi kontaan nañ nag ci déplacement bi yëpp bu ko yëg rek ñëw dëgg yàlla kontaan nañ ci trop waaw bu ñu ñëw fii danañ la ñaanal yàlla sa soxla boobu suñu combat la lépp dana dana fay waaw suñu danaa danaa ko dénk ñëpp waa conseiller ñoom ñii ñëpp waxtu bu ñu defee toog ñu ñaanal la yàlla waaw jàppal na daal conseiller conseiller yi ñu tàllal ñu loxo incha allah rabbi am na nag ay projet yu fi ne lu mel ni daara goo xamante ne bëgg nañ ko fee tabax te yow bëgg a teg première pierre ci kanam su waa ñëwee yooyu noonu yëpp bëgg nañ ko fee def ndax dëkk la buy màgg te xale yi amaguñ fuñ jàngee waaw a jàngale ak diine lislaam loolu moom jullit bu mhm. loo ci mën soxla woon xaalis la ciment bëgg nañ fer bëgg nañ lépp bëgg yi ku ne mën na cee jàpp. incha allah rabbi kontaan bu baax a baax baax baax li nga def ni rëy na ñun. da ngay ni xam na waaye man xam naa la sa jëw toog nañ jotaay ay yoon sa jëw yegg seen ñun taalibe bàyyi loolu moom dëgg moom xam naa waaw jërëjëf kontaan nañ daal ak kii nag sama mag waaw moom mooy taay Cheikh Mouhamadou Moustapha moom moo suñu mag ñëpp Moustapha la nekk jàpp na daal fépp fu xam ne nit am nañ fa ñaar nee na nee na fa bàyyi ko sa tur te dëkk bii am na fi ñoo xam ne rek lañ xam te duñ nekk loo xamante ni lew la waaw lépp lu ñu wax suñu borom bi ci bëri incha allah. jaam bu sant bu naqari dafay sant ñun sant nañ yàlla ci neex-neex kii nga xam ne mooy si Cheikh Mourtada do sunu gan daanaka du gan ndax yi fi fam dalee dafa yëg ci Alaaji Ablaay ba léegi ñi nga àndoo àndoo di rafet te wax naa demee ni ci jamono biñ rajo bi ci bari lañ waxoon nag rek euh, la ñuy waxaat daanaka mënuñ ko répété lépp sax waaye nag dañuy gërëm yàlla sant ko sant suñu ñaari seex yi muy Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh Ibrahima sant suñu vilément di Cheikh Ibrahima Cheikh Ahmad Tidiane ñëpp ñu ngi leen di di leen wàccu seen wàccuwaay te xam ne dëkk bii seen dëkk la ñëpp la fi naan ndax lu tax dafa yàgg ñu mu ñun mënuñoo bañ bàyyi mënuñoo bëgg lu bàyyi lu tax dañ ko fekk ci suñuy baay fekk ko ci suñuy maam junjoon naa ko ca Alaaji Ablaay na ma àndee woon ak sama maam ju naa ko ca Cheikh Ibrahima ñu àndoo ak sama baay ju naa ko ci ngéen ñi ci la ko dalee ca Baara Sika ak Habdouar ak la ko dara ci Lamine Gueye ñëpp ñi nga àndoon ak Alaaji Ablaay ñi àndoon ak Alaaji Ablaay Ibrahima mii ñu ñu mujj xam ñëpp nag dañoo àndoon te yàlla tax ànd te yàlla tax nag amul teqalikoo looloo tax biñ gisee sëñ Murtada ñu topp ko ñu gëm ko ñu hóolu ko ñu jàpp ko ndax waxoon naa ko fa keroog ne leen sëñ Murtada bàyyi moo ko présentel boppam bi nga xamante ne jur na ak njabootam góor a ku jigéen kenn ku ñëw moo am lu la kinaayale ci ci ci ci ci yonent bi moom ñu kinaayale ko mortada kuñ gërëm gi kon kuy xut ngërëm war nga ko xut si sama dikk ak moom sama dikk ak moom fii nag duut man maa ko sàkku euh, duutit moom moo ko sàkku jëfi yàlla la ak ndogalal yàlla ci atto dafay daan ñëw ci Ababacar Diop mii nga xam ñuy àndoo ca place ba ca Kaolack Diop nekk fii man ma ñëkk fi ñu ñu ñaari place man ma dëkk koo si léeg-léeg ma kayi fi bi ñuy waxtaan ci biir waxtaan gi mu xemam ma bëgg ma daal di ne ma dama bëgg ñu dem ko sama dikk ak moom ci koosi sareet la dikkaat ci moom koosi dox la dikk na fi ak welo jagataat dikk na fi ak moto ba mu dikkee it ñu sant yàlla ci dikk gi waa dëkk bi ba ma ne leen doomi bàyyee xeg si ñëpp ma daal di wër kontaan ci melokaanam kontaan ci dikkin bi ma présenté leen ko ñëpp def ca lañ man nga xam ne man lu ma mën ñoom ñu def ko waa dëkk bi yëpp góor ak jigéen ñu mobilisé wu ñuy waxtaan mu di ñu dig lañ ñu doon dig ñi du ko gis ndax fii ñu toog tey yàlla dogal na imam bi fay mm. mooy ala imam alaaji mm. nga xam ne bàyyi moo newoon sëñ daara bi mm. e, alaaji Faati Guèye di di di bàyyu jabar ji ju mag ji moo doon alaaji Faati Guèye di xam nga ñooñu boon bëgg bàyyi la ñu def fekk demandé na ndax ci man kër waaye booba séddalee guñ kër yi maxaande nay si ko ci ilimaan mu ne ba mu ne kër rek mu bëri da ko kaay ma may la fii fekk booba sëñ moo tax mi joxoon fu sot bu ngeen ma mënoo ma may fii mu ne ko kaay ma may la fii mu may ko fii ñu taxawal fi ay sàkket gannaaw gi mu ne ma dama bëgg kër ga taxaw dese ñu ay dese ñoom ab ni ma bi nii la bëgg a mel la ca taxawee doom jiit muy seen Cheikh taxaw ja bañ def lu mel nii xam solo nag waaye sëñ Murtada département bi gis nañ ci wax dëgg yàlla keroog bañ euh, taal ba ñu ba ñuy indi fii Cheikh Traoré fii tombé naag ñu ngi indi euh, courant bi. wax dëgg yàlla ci wàllu tabax gis nañ avancement ci wàllu xam-xam it gis nañ ci avancement kon li ma gëm mooy la yàlla gërëmoon ca suñu àndoog Alaaji Ablaay gërëm ko ci suñu àndoog Alaaji Ibrahima Niass mm. yàlla daf ko junj ci sëñ Murtada bi bi nga xam ne Cheikh Ibrahima tuddee na ko kuñ gërëm ki kon bu ñu xamee kuñ gërëm ki dañuy sant yàlla xam ne xéewal dikkal nañu ak nu mën a demee yàlla dogal nag moom murtada moom du ko yomb lool xeebut jën xeebut basaab xeebut nitut lu ma am rek jël doo ko ñu xam ne baax na sant jagaar la lool mooy ngan gi ndax xam nga ne am sool léegi léegi nag xam ko mën a def ganaar wax dëgg yàlla dëkk bi góorgóorlu nañ sax léeg-léeg ba xam bëy yóbbu naa ko fi sax wax dëgg bay euh, kaw ci soxla ak suñu roq ji léegi nag liñ gërëm lu neex du doy dañu bëgg lu ko gën a dolleeku kon bu seex jëm see fii dañuy gën a sant yàlla xam ne kat dafay delloo buum ci booy boo ma waaye dafay feddali kóllëre kóllëre ak alaaji Ablaay ak sunu maam waaye kóllëre ak alaaji Ibrahima yi ak sunu baay waaye kóllëre ak alaaji Ablaay ak sunuy mag kóllëre ak alaaji Ablaay kóllëre baay mi Murtada ak ñun ñii fi nekk kon nag ñi ngi sant yàlla ci loolu ñu ngi gërëm yàlla ci loolu yàlla dogal na nag taxut nag ñu am solo waaye xeebuñ ko nag xeebuñ ko de kii nag keroog wax naa ne dafa mel ni moom seex mii ma ko koo yaatal ma ko koo waxal ba mu xam xay xam xay xay xut si fii dëkk bi ne maa ngi dem fa ña doon teeral sama baay maa ngi dem fa ña fonkoon sama baay kooku maam El Hadj Ibrahima Niass la ko niru maam El Hadj Ibrahima Niass dafa waxoon ne. man sama jëfkatu njekk duma ko fayee fàtte kon bàyyam njekk gum fi mas a am seex mi fàttiwu ko ñëw na di feddali kóllëre gi kon danañ gërëm yàlla danañ sant yàlla di ñaan nag mu doolee ko wax ji bu guddee waatee naqaji xel la waaye su ma sañoon wax lu neex ki nga xam ne agsi na léegi mooy imaamu dëkk bi moo xuusu alaaji géey moomu ma leen junjoon yàlla dogal na nag moom it mi ngi rafetal mi ngi jéem a góorlu ñu ngi jàppante li bëgg nag mooy ku ñu ak déggoo waaye ku ñu ñaanal xam-xam ku ñu ñaanal xam-xam ku ñu ñaanal man-man seex loolu nga loolu nga dégg ci man looloo nekk ci élément bi moo leen. leen dañuy dem man dana leen fekk parce que bu ma commencé ak Goumba Action léegi si ma bëgg a dugg leer. ah da ngay dugg avant kii avant dem Goumba Action. kon da ngay contacter Cheikh Thioro Seye pour deux minutes rek la jëbal kon kooku dundam yëpp bàyyi xayaatam yëpp bàyyi Cheikh Mourtada xam na loolu bàyyam la na koon parce que ci développement ci jàngam ak ci dëppam ñooñu la nekk lu bëri fii ci ñu toog fii ci ay doomi Madina xamul doomi diw wala doomi diw doomi Madina yëpp ay doomam lañ kon bu ma toogee fii tey ñu jox ma photo baay bu am photo Tirmidi te baale ma Tirmidi xamul Cheikh Tirmidi Tirmidi rek la xam mos na ma tooy mu ne ma yow léegi la wax Chérif dama wax yu ma Chérif man maa sa papa mu ne ku laqab titre boo xam ne yow bokkuñ la ko ak xaaj yu si nga xam ne ne kuñ ko wax ay mën naa am dañ ko naq la mais du titre yow bu nekkee yow tamit di xaaj nag xaaj eh, yu am titre yi dañu war a ragal seen titre yooyu kon tamit boobu musul nekk sëriñ oustaz Barham Diop kenn musa ko mu def kaale mais ñaar léegi kaale bu gën a rëy ci kaw suuf moom lañ am ndax ñu ngi tëj ci kon ci wa ci baay ziyaara mboolem xabru fii ci Sénégal doo musa gis benn xabru bu am ñaari fan lu dul xabru Mawlana Cheikh Ibrahim xabru bu nekk sant bi rek laa am fii ñas na si sa mi ngi foofu Diop mi ngi foofu léegi ay dara mi ngi lan ndax inna Ibrahima kaana umma والأمة قصدي بهم وأن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلهي kooku mooy Baay moo mën a dajale xeet yëpp xol boobu lañ war a ñun am yaatal pour ñëpp accepter ñëpp ubbi li ñëpp amul naar amul pulaar amul naa amul naa Baay mooy Baay rek kenn mënu ko xar ñaar kon ñu fekk nekk ay taaliba Baay ngir yàlla léegi sëriñ ñoo gën a ëpp taalibe ay oote ay oote maqaamu ay oote daraja ay liw ay la maa ngi fàttaliku benn muqaddam bu mag a mag ci baqadin Dakar yi bugguma wax turam mu ñëwee tamit di ko di ko invité di ko wax mu ne ko di ko laaj arab muqaddam bi mu ne ko tontu arab mu ne ko yow ak lu ma wax yëpp ci yow te bàyyi lu mu def yëpp arab moo ci gën a comprendre man daal lu ma dem jàngi jàngi kii mi loolu mooy dëgg ah kii bàyyi xam-xam la indi xam-xam la ñu bàyyi moo tax li ñu def tey ma fekk ku moom mu la ma gën a neex ci lii sant rek maa wax ak Cheikh Moustapha balaa ma a mu ne ko war ngeen sam foofu daal ma ñëw rek mu ne ma pose première pierre mi ngi nii ci inchallah kon man ci tuuri Tirmidhi bi Abdallahi ah ak ci barke rek ndax mënu maa wax lu muy jógee ndax moom xaalis ku ne xam na lu ko yabee danaa def incha allah lu mu mën a def ci daara ji te danaa ko jox cheikh Murtada wala cheikh Tijani kenn ci ñoom incha allahu taala ci turi tamit di barkeelu ci loolu di wax na famille bi yëpp yëpp kontaan nañ ci lii te bi yëpp yëpp nekk na leen ne tamit buñ ko defee ba léegi fii kuy ku njëkk a mooy kenn ci doomi pays bëre gi ku tudd doon ñu ko rendre hommage mooy ne ñëw na ci palaasam mooy ne ci ësal yàlla dafa tànn suuf bu ñu defaree baay ak suuf bu ñu defaree permis mu boole leen moo tax buñ ko sóoree léegi buñ ko sóoree dañ waxoon ay place bu bëri mais foofu ñun dañ bëgg mënuñ ko wax bu ñëwee ca imam Cheikh Cissé mu wax mu ne ko lii la bàyyi jokkoo ci asgina bàyyi daf ko jox nii ci bëtal moo tax mu suuf ci bëtal moo tax tamit wax mission boobu du dellu gannaaw wala mu yoroon yi ngay nii multavita du gëstu nii rek lay xool baay moo tax ba léegi mu ngi xool baay yàlla na yàlla def ci tànkam boobu ci bugg baay ak ci xidma baay ak ci mahabba baay yàlla dund ñu ci loolu te yàlla rey ñu ci loolu te yàlla mu def ñu yowmul mahshar fii ci Madina Baay ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikh Ahmad Tijani ci barke baay barke jotaay bi ak borom jotaay bi ak awliyaahu yàlla bi ñu ñëw yëtteew yëpp yëpp ci barke ginaar yi ci barke ak lépp ak kuusi càmmeen ak képp ku nekk fii ci barke may yëpp lu mbugg man maa am soxla te léegi dama kaa doon euh, raay ji nii di wax ci kaw kaw kaw dama bëgg dund ci bëgg bàyyi déet ma am ay samba booy fekk ko fi buum yóbbu ko hôpitalu Kaolack ci quatre heures du matin gor jaas yi ba boo ko gisee ci Facebook doo ko ñëwee ñu téye ko fa ba seize heures mu soog a dee dégguma kenn ci ñoom taxaw sax ci réseaux sociaux yi ne ñu ngi jaale dégguma ko man kenn ci ñoom dégguma ko ñu ne ne ñu ngi jaale ñu mel loolu yéen ñëpp na leen jox xalaat jël leen jël leen seen i matukaay yéen moom seen i carte ci seen poche yi kenn joxu leen ngeen lekk kenn joxu leen ngeen naan jaami yàlla ngeen yàlla leen amee kenn amee wu ngeen nit koo a ne buy ko buy nelaw ñu di ko bu duggee ci bis bi sangu sax garde ñu kon ba mu dëkk kuñ fa xamut boo fa romboo sax ñu jàppale tëj seetaan population bi ñu leen faat comme ni ñuy faatee ay njéeréer su loolu nañ ci ñun ñëpp suñ góom la ñun ñëpp nañ ko jéem a fajal suñu bopp kenn ci ñun ñii kenn ci ñoom juddu ñu ne la ba ñuy ngeen ci président ngay doon nit ñee la ko def yaa ko ut ñu ut bi la ko ci yàlla nga dox lu wér doo xool nag ba nga ragal moo di ko nettali keroog ba président Macky bi ñëw Médina xam nga chef yaa ngi ñuy toog moom rek ànd ak Mariama Sarr ak chef yow mii ak beneen nit ak moom muy juróomi nit mu ñëw toog maa ngi toog mu ne sëriñ bi man fii laa dëkk Médina ba Médina gii laa jàngee kawar loolu si nag saaru damaa soxla réew mi te fii bokk na ci ah, naa la jox ay condition réew mi réew mu jafe la dund bu cher la baykat yi sonn nañu jël seen récolte ba pare jox leen ay bout tey ëllëg tey ëllëg sonaa gërëm mu ne sonaa nangam nangam nangam ba asamaan tawaat tey benn soxla du ko dégg nga mi ngi am ay masla yu war def ci ay bokkam ak ci këram dégg nga xaalisam wërsëgam noonu seey ci seen loxo ko loolu dana fi jeex dund dafa cher dana fi jeex réew loolu mu taxaw na ko nangul naa la loolu dinaa def sëñ bi ñaanal ko par rek man am naa njortu rafet ci yàlla la ndaga jot ci réew mi kenn ñu waxul ko bu toogoon te ma nekk ko ci kanam làkkum tubaab làkkum beneen làkk olof lañ doon wax fu ma a fekkee jotaayam nag nitam toog ko danaa fàttali loolu parce que yéen si saxee lu ne ko zakir fa inna zikra tanfa'u al-mu'minin zikra fàttali dafa baax te xam naa ne fàttali tuddee nañ fii bàyyi wax ci loolu mboolem kër diine yi ma xam Sénégal riposte na pourquoi xanaa gëm ko woon universitement ngi ñu taxaw ba léegi dégg naa fi bu Amadou Mokhtar Mbow dégg naa fi bu xaw ma nan xaw xaw ma Aliou Cité Diatou la xaw naa fi nangam nag su bu nee rek am na tabax fi complexe boo xam ne ñu ne Abdou Diouf lañ ko tuddee nangam ak nangam ak nag ma ne dina réew mii ñuy foog na ñoo ko moom moomuñ ko ñu foog ne yàlla ñoo tax yàlla bind Sénégal tax ñu yàlla bind Sénégal jàmm ji fi ne du ñoom nit yàlla yi fi jiitu woon la ñaan ko yàlla yar ay nit xirtal leen ñu jaamu yàlla def seen xol yi jëkkalante ak liggéey ak am dara ak parmanante seen biir loolu tax ñu mën a jot ci réew mi ci suñ demee nag ba gëm ni ñun dañuy na war a ci ci biir régime yii ñu weñu daanu ci soow Sénégal du jig de waaye ñoom danañ jig Sénégal du jig incha allah waaye ñoom danañ jig kon ñu ngi wax ne lañu dal ca mi dina ne ci américain la daal mu gën ñoo naqari mu naqari ñu ñaari yoon waaye man xam naa ne ñu ko seqat ay ñu ñu ñu ëpp ñu ngi ko seetal. tey ne leen ñu ëpp loolu. waaye yàlla baax baax. ak olof yi ñu leen ci kanam raw ci bët. lu juwoo jeex bu jógu fa. amul ngànnaay nag amuñu milice. bëriwuñu wax mënuñoo léegi. jotuñu ci média yi waaye am nañu yàlla te ko am yàlla ñàkkoo dara. suñ soxla la dañ ko gis yàlla bi bismillahi taala te yàlla dinañu ko fa def. teguñu ci dara yàlla dinañu ko fa cheikh yi ngay gërëm cheikh ba te yàlla ko jëlee ci sa bàyyi bu baax baax yàlla na ci yàlla saxal amiin yaa rabbi yàlla bu la kenn dégg ci safaan ba ak la cheikh te mel ni man du ma ci wax lu bëri dama sa toog ziar si sëriñ bi ma di ko xool cheikh Mbacké Diagne moom tan mi ay toog ba yàgg mu ne ko cheikh law kaana sharaban la sharibnaa walaw kaana aklan la akalnaa walaw kaana lubsan la labisnaa lakin mu ne boo jeexee xaar yaa cheikh Tidiane الخليفة ما هو الشيخ؟ قال دينا قرصوان قال أنا أسألك أيضا ما هو الشيخ؟ من هو الشيخ؟ كل واحد منهما يسأل صاحبه من هو هذا؟ في النهاية بكى رضوان الله عليه عاش محبا ومات محبا moom mu ngi ne néeg bi ci nga xam ne bàyyi ba waaye daf ko bëggoon lool ba ëpp lool su nga ca pas lam ba wax na sharaful jibrilu dégg nga moo ko neem jibril conduire na waaye ba conduire ko ca Makka ah loolu nag dëgg yàlla ay jaaraanga la xam ne yàlla ko waaye ko fadlullah yu ci mën a loolu duut ne dangay góorgóor dangay nangam nangam rek jot ci déedéet yàlla koy joxe liggéey na bàyyi nag loolu jox na ko ndawam yépp su naa gis su naa dégg koo wax benn baat ci li Aliou Cissé lu doon waaye yàlla yi tontu ci ne ko ah, xaw ma de li la diw jur moo tax waaye bu toll loolu yow jublu sàmm tey bu soxlaa yow ak si nga bokk yépp lay boole yóbbu ca marché ba jaay bàyyi ji bu bàyyi léppam nag ay mbokkam bàyyi liñ dook liñ xam yépp ak liñ doon ñëw teg ko ci loxo sëriñ si fekkee da ngaa foog moom maa nga xamal ne la loolu du xas ci rajo rek nekk ay tudd moo tax ñooñu yal na leen ñu leen yàlla fayal. amiin yàlla bàyyi yéen ñëpp la leen ko naqar te ba mu am ci naqar bu ulama yi ne ci jëf bokk waxuma am fu nag violence non bu kenn saaga bu kenn xaste waaye na ngeen xam ne ay citoyen ngeen te doon ci réew mii ci ngeen bokk. réew bi mii tey ku ci génnewoon Cheikh Ibrahima Niass Mame El Hadj Abdoulaye Niass li mu am ci doom ak i taalibe ku leen ci génnewoon Sénégal soppali ko àll. Sahara Diar daa lay doon. ay bukki rek a fii dëkkee bu boobaa waaw ku leen ci génneewu rek Sénégal génn set gii ñu ci bëgg a set rek yàlla nangu ko ñu ñu ko nangu asalaamaaleykum wa rahmatulah. alayka salaatullahi thumma salaamu fa barhaamu jiddun aashiqun fika waamiqu alayka salaatullahi ثم السلام فطرها